wajaxal kalaami raasidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arsida asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jëlin mbokk taalib yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di jiite ci nuyoo bi ziar bi saaxibul fadila Sëñ Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak di jaajëfal képp ki bàyyi xel Nour Daayane TV moo xam fii jërëm wala bitim réew la ñu fas yéene amal palaatu ngir wàccaay bisu bisu bi nga xamante ne moom la jokkoo Safinatu Amaan di amal fii si caari géej ñu koy amal le 13 janvier 2019 muy tombé juróomi fan wala juróom-benn fan ci jamaadul ula kon tey nag ñu fas yéene dalal commission culturelle Jokko Safinatul Amaan muy jëriñ ji sëñ Saliou Diop ak sëñ Diop mi nga xamante ni ko xam xam ko ci wàllum jàngale ak jàngale ci daara ji kon ñu fas yéene waxtaanee tey di leen laaj lan mooy sabu taxawal bi bisu xasida kon loolu la ñu fas yéene waxtaan ak ñoom tey incha allah. kon ba loñu guddal rek ñu jox leen kenn lu nuyo ñu fasiyene dug ñom ci waxtaan bismillah seigne job a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى خير قديمه ذي العلب المتين وعلى من اقتفى أثارهم إلا يوم الدين ginnaaw bu nu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant a cheikhul xadim ñu ngi ñaanal cheikh Mouhamadou Nil Muntaxa suñu borom may ko fan wu gudd lool wa ànd ko wér bale mu yéenee liggéeyal Serigne Touba ci liggéeyam bi lépp mu àggale ko noonu lañ koy ñaanal jëwrinam Serigne Cheikh Jëmbu Fall noonu lañ koy ñaanal itam mbooleem Serigne Serigne Touba yëpp ak mbooleem Cheikh Serigne Touba yëpp ak mbooleem taalibi Serigne Touba yëpp ginnaaw loolu ñu ngi nuyuwaat mbooloo mi baax a baax di jiital sëñ Xaadim nga xam ni moo jiite émission bi dañuy ci teg Serigne Saalix suñu jëwriñ xam ne moo jiite commission bi nga xam ne moom lañ dalal tey xam naa di nuyu itam mbokki taalib yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen télévision bu mag bi xam naa sëñ Xaadim dañuy bañ a guddal rek incha allah jox la nga continuer liggéey bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kon jërëjëf sëñ Diop nuyoo bu am solo boobu nga tàmbalee xam naa dañuy jox sëñ Saliou Diop rek moom it mu nuyoo ak mbokki taalib bi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 mbokki taal bi yépp tey jiital ci ziar bi sunu sëriñ suñu xalifa Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. te dëgëral ko ba yéene yi nga xam ne moom la naal di ko ngir liggéeyal ko maamam maanaam suñu borom may ko kàttan moom ko yeggalee loolu it ñu koy ñaanal kilifa yi yoon wi yëpp maanaam di ci teg suñu xaadim yow mi nga xam ni yaa ñu dalal tey jii. maanaam di yi it ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy topp ci chaîne chaîne Nour Darayni TV te di la nuyu xam naa dañuy jox sëñ Xaadim rek maanaam mu wëyal ba kàddu gi ñëwaat ci ñun. kon jërë ngeen jëf ci nuyu am solo yi ngeen tijjee ñuy sëñ Saalix ak sëñ jóg xam naa nag ku wax bi su xasida xam ni kat maam commission culturelle lu ci am solo la waaye dina baax maam booy taxawal bis nga xam sabab ba ak mu ngi a li nga xam ne ñoo seen nekk ndax ku gis jamono ji xam ni mu demee mbokki taalibe ñu ngi taxawal bisu xasida fu ne waaye ñu bëggoon laaj seen jóg maam ana yan sabab lan waral a taxawal bisu xasida ak lu waral taxawal taxawal bisu xasida jërëjëf suñu xaadim ci laaj bu am solo boobu ndax ni nga ko waxee dëgg la ginnaaw kullu shay'in sabab lu ma doon am lu ko sabab baax itam kon bisu xasida yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ñuy jàngat lan moo sabab bis bi day mel ni nag kenn ku ne ak sa yëg yi rek ci ni ñuy taxawal bisu xasida waaye man li ma ci yëgee rek ci ni moo tax murid yëpp commencé di ko defandoo mooy murid bu nekk rek yëg nga ci sa bopp loo xam ni moom la xasida def ci yow bu ko defee nag kon day mel ni murit yëpp seen yëg-yëg bu maasee ci loolu du ñàkk moos ñu ni war nañoo taxawal bisu xasida ngir xasida yooyu nga xam ne moo defal loolu ñu xool nañ leen koy màggale ndax taxawal bisu xasida du dara lu dul màggal xasida rek xasida comme day lu sun borom màggal di loo xam ni Serigne Touba am na wàccuwaay ci moom di ci ñëw xam naa ci kanam ci laaj yi na ci kanam looloo waral murid yi tam am yëg-yëg rek ci ni kon loolu daal war nañoo fexe ba wutal ko ay bis ngir di ko jëmmal ngir di ko taxawal ngir sàkku ci ngërëmal Serigne Touba kon danaka loolu rek moy sabab bi nga xamni moy sabab bu su xasida donte nak lepp lu ñuy defal Serigne Touba bu amé sabab ni ci saahir itam du ñak mo sabab bu batin bo xamni mo ci am ta loolu moy sabab batin itam da ngay gis ni Serigne Touba moom xasida wàccuwaay bi mu am ci mom du ñak jëmmi jamono bu ñëwé am ño xamni dañuy jëmmal lool ndax serigne bi ci wax nañu sax Iblis musna waqante waxante ay kaddu ba xamal ko ni sa xasida yi am nga ci loo xam ni ab yonent musu ko am waaye yëg naa ne bu ëllëgee sa taalibe ci leen lay fàttali kon nga gis dégg ci ni kon am na sabab bu yàgg boo xam ne baatin la ci ni murid yi war nañ ko def xëy na mu ñëw ba jamono ci yëg-yëg bi murid yëpp maase ci moo waral ñuy taxawal bisu xasida te nag wa man yuasim hurmatallah fa huwa xayrun lahu looloo waral kon xam naa laaj bi loolu lañ ci ubbee rek incha allah boo jaalee ci Serigne Saalih ñun moo ëpp xam-xam moom it xam naa dina ci def ay leeral yu ëpp solo yooyu waaw jërëjëf sëñ Diop ci leer yu am solo yooyu ndax dina baax kat mbir boo ci dugg nga xam na nga duggee rawatina kat xasida yi nga xamante ni sëriñ bi maanaam tagg yi ñu tagg yonente bi ku ko dégg ku ne xam ne kat lu war a màggal la kon dañ dañuy gis jox sëñ Saliou moom moom it mu wax ñu sabab bi tamit ngir lan mooy waral ñuy taxawal bisu xasida ci mboolem gox yi nekk ci àdduna bi bisimilah. bisimilah xam naa <coughs> ñu ngi sant bu baax sëñ Diop ci leeral yu am solo yooyu. waaye di sëñ sëñ xaadim day mel ni bisu xasida moom boo ne luy sababu taxawal gi maanaam di nga wax lan la ñuy def ci bisu xasida maanaam it di nga wax it lan mooy xasida yi nga xam ne moom loon utal bis loolu it dinga ko wax ndax bu ne dañuy taxawal bisu xasida benn xasida yi nga xam ne moom lañ ci taxawal maanaam dafa am lum làmboo xam naa dinañ ci ñëw ay njariñam waaye xaside yi sëriñ bi da ko tënk ci ay mbir muy da ciy tudd suñ boroom ak ko sant di ko ci jéggalu yenn xasida yi yenn it mu ciy def salaatu ala nabi yeneen yit mu ciy def ay ñaan yoo xam ni da ko ciy def yéen it mu ci tagg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam it te bisu xasida boo ko taxawalee na nga koy dundee mooy maanaam dañuy dajaloo te loolu it suñ boroom daanaka tudd yàlla daf ciy wax ni maanaam yéen ñi gëm yaa ayyuha alladina amanu dikrullaha dikran kathira maanaam yéen ñi gëm na ngeen tudd yàlla tudd gu baree bari waaye tudd gu bari googu it bi mu koy wax dafa daf ko def pluriel mooy maanaam mbooloo la wax bi muy tagg ju lenn ci jullit ñi ak seeni melo bi muy wax innal muminina wal muminat waaye bi mu egsee ci ñi tudd yàlla wa zaakirina allaha kathiran wa zaakirat waxul wa zaakirillaha waaye da koo def pluriel mooy ñu bëri di ko defandoo bisu xasde it xasde yiñ ci jàng mu nekk ay tudd yàlla wala arxuraan jiñ ci jàng maanaam ñu bëri ñoo koy defandoo utal ko bis utal ko jotaay loolu it ah, alxuraan maanaam jàngale na ko te maye na ko ndax day mel ni buñ xoolee ni ñuy dundee nit ñi dañuy am ay yitte yitte yi bëri gi muy bëri ah, day mel ni jaamu yàlla goo xam ni bis boo xam ni bis bi yëpp danga koo jox sa ruux maanaam joxoo ko sa yaram nga lépp danga koo nekk di jàng alxuraan di ko tadabbur maanaam ñii di ko yëkkati ñii di déglu maanaam maanaam tagg yooyu sëriñ bi tagg yonte bi saa salaam di ko teewlu julli gim julli ci moom ñaan yi ñuy def nga xam ne bis bi yëpp lépp dañuy wax ni sa ruux nga ko jox maanaam it bis bu nekk nit ki du ko man moo tax it di bis boo xam ni da nga koy jagleel sa bopp waaye jagleel ko àllaaxira maanaam bisu xasida day nekkaale ci loolu ñaareel bi dina dajale ñoo xam ni mën naa nekk dajale woon leen lu jafe-jafe la muy dajale koo xam ni mën nañoo gëj a gisante te ñu waroon di dox mbokk maanaam bisu xasida yi dina def loolu maanaam li ci toppit mooy xasida yi nga xam ni moom lañ koy def nga xam ni suñ jowa wax na lu bari fu ñu koy jàngee iblis day daw iblisu farasha kiya ila siwaaya baakiya musaara xatina kiya kulla fade fadiri wax na ko feneen ak feneen fu bare bari wax na it xasida yi ni muy euh, tarbiya xolub ci koy jàng moo tax yooyu yëpp ñu koy ñi nga xam ne ñoo si ñëw dal leen koy maanaam bis bi day tax ñu def loolu moo tax bis boo xam ne buñ war a taxawal la nga xam ne lu ñu waroon di def bis bu ne la ku nekk di ko defal sa bopp waaye ñu waroon di daje di ko def mën na ni sax daayira yi lenn la ci waaye bis bi day gën a yaatu ba ñu bëri ba du ci teew loolu it mën na ne wax ne sabab la gu war a tax ñu war a taxawal bis. jërëjëf. sëñ Diop sëñ Saalix ci kàddu yu am solo yi leeral na sa kàddu yu am solo yoo xamante ni maam dajale gi nit ñi fi di dajaloo ngir wàcc xasida yi foofu rek loolu rek jar na maam bokki taalibe yi di taxawal bi si xasida waaye dañuy dugg dugg foofu tamit laaj leen maam loo gis lan tamit dina am wàcc waay maam yan ban doy la xasida yi am maam ci yoon wi ba tax ñu koy jàppal bis di ko màggal bisimilah sëñ Diop. jërëjëf Serigne Khadim ci laaj boobu am solo boobu ni nga ko waxee ndax bu dee wax nañ lan moo sabab ñuy taxawal bisu xasida kon xasida yooyu nga xam ne moom la ñuy taxawal bis itam du ñàkk itam ñu wax ban wàccuwaay la am day mel ni sax wax dëgg dëgg daraje xasida wala darajey wàccuwaayam dëgg-dëgg euh, dina jafe ndax sun borom rek moo ko xam ak sëriñ bi ko leen bind waaye booy xool sëriñ Touba li muy wax ci mbind mi di nga xam ni kon lii lu am dayo la lu am doole la lu am solo la ndax doy na rek li mu wax ni sama xasida lu dul alxuraan ak xadis moo ko féete kaw te ku ne xam na ni alxuraan waxi ji waaye wala suñu borom la nga xam ni moom rek lañ mën a gis muy fa boo xam ne min sifaatillahil kamal ci kaw suuf beneen bi ci def mooy xadis mi nga xam ne mooy leeral alxuraan moom te mu bàyyi ko ci yonent bi salaay salaam te suñu borom wax ne wa maa yantiqu anil hawa waxewul ci kanam kon kooku it day mel ne ay waxam lu am doole fa yàlla te sëriñ bi ni nag lu dul ñaar yooyu sama xasida moo ko gën a waxat ni tam xasaayid min muhjisati muntaqa sama xasida yi ci mujj sa yonent bi la bok ta ku ne xamna ni yonen manam yonent mujj day don li nga xamni mo upp solo ci yonent ndax moy tax ñu degeural ko ci muy dëggal ni man yàlla ma maka makaana khawlillahi jalla sadaqa abdiya fa fi masaul faqa melni kon mujj amna doole taxaw taxawaayu place yalla ci mom mi nga xam mo yoni ab ni ginaaw yàlla mënul def loolu ab yonent nanti, da koy boole mujj sa ngir mu dëgëral ko kon bu sëriñ bi waxee ni samay xasida mu mujj sa la ci yonte bi ku ne xam na ne loolu am na doole lool waaye li tax nga mën a jàngati ni itam xasida wàccuwaayam wala doole jim am kenn xamul mu tollu mooy sëriñ bi ko doon bind sax xasida yi day dem ba demel lu ko yéem ci ay nettali yu leer ñuy dégg ñu jàng xasida yi sëriñ bi di daanu ak naa ko wax loolu ndeke wax na loolu dégg naa sëñ Moustapha moom sëñ Abdul Khadir, mu wax ni am na kenn ci mag ñi da ko wax mu ne man de sëriñ bi jaaxal na ma ndax dañuy jàng de yi mu naa ndeke wax na loolu mel ni moom waxul wax ji nee na mu ne ko ah yow de kon mbirum sëriñ bi ump na la xanaa xamoo ne sëriñ bi moom dañ ko naan octobre rek maanaam bindal kon da nga dégg ni kon li wax ne lii mu ci sa yont bi ci la bàyyi ko kon da nga dégg ni xasida dooleem sëriñ bi ci moom sax da koo yëpp nga dégg ni itam sëriñ bi ni li daan def ci nit muy ko te loolu lu jafe la manam defal manam taxaliya nit ki defal ko taxliya ci manam tërbiya ko tarxiya ko manam tasfiya ko tarxiya ko lolou serigne bi dan def ci nit nena na man yi ko ci nit moo koy wuutu am sax ño xamni dañuy jangat yu xoot ci lim waxon ni tërbiya taxo ta amutuma jot taxo kenn waye Balla Faali jang defar nako na wax nañ ni xasida jaribatu maraaxib bi bi ko bindé bobo fekk na mi ngi ci tukki bi nga xamni mo la bindon sax sanni ko ci ndox mi di wane yéeme xasida gi waaye nee ñu am na mag mu fa demee doon ko siyaar yi yaakaar naa gànnaar la ko fekk mu jox xasida gi ni ko joxaaleel ma ko Balla Fally Dieng am na ñu wax ni looloo waraloon sëriñ bi di ko joxañ ci bëgg nit ñuy dem foofa di tërbiyewu ngir mu leen di jox xasida gi ñu ko jàng dégg naa ci nettali yu leer itam ci dongay Seex Mouhamadul Bachir yi ñu wax ni am na koo xam ne gis nañ ni daa ñëw maanaam di tërbiyewu ci Seex Mouhamadul Bachir waye dirup lam fay nek nga xamne jotu la dem ci dar ja xam nga tarbiya bo dikkee da ngay nek ak euh, serigne bi nga xamne mo nga nekkal bakaram lay orienter da lu ci ben dar nee koku day def nak jamar bu nek rek muy ñew taxaw ci buntu Cheikh Omar basir di yëkkati tu maraax waye mag mi ko nettali ci dongam yi la bokon nee ay fan la ko def rek mu wo ko ni ko bi manam li fi indi won yow ba nga war ko def xasida gi far ko def ci yow li dara ken xamul ñu toll ta lolou yi wax ju mëna doon day tungum séré ku ne gis na nga ne jakk ab murit defe ni ki Serigne Salih moko tarbiya wala Cheikh abdul Ahad wala kenn ci doomi Serigne Touba wala Serigne Touba ci bokkum ta bo gëstoo ba ci bir gis ni musul dem ci genn dara xayna sax dakar gi nga xamni bir bu doy war la fi lay juddo magge fi ba musul génn waye jang gi mi jang khassida ak setantal gi mi koy setantal ak bàyyi xel gi mi koy bàyyi xel dem na ba khassida gi fa def lo ci mom ta yit dañuy gis ni ci mbindum Serigne Touba rek lañ koy gis ginaaw alcorane te nah, alxuraan sax leg leg, pour nga jariñ ci alquran deug deug deug dafa am lum laaj nga sëriñ bi sax misaal nako ci dugub la mom alquran nga xamni kon dafa jar ñu jël ko sokko ko wal ko defar ko ba mu murité nit man ko xewlo mu misal ni xasida yi nak day mel ban ko defare mom ba mur ñu war ko xewlo lool sax léeg nga wax ko nit mu melni da nga yaakar ni kon day bëgg jël alquran di tej teg waye dedet waaye duñ def lool xam nañ ni alquran serigne touba ko mom ta alquran wax yalla la kon kenn du ko jël len diko ko tey kaw waye dañ la bëgg wax ni alquran day lu bayiko ci yalla te yalla mag kon ay waxam dina nakare jariñu kon day mel ni ay ahliye rek lay am ñu mëna jariñu alquran joju mu melni nak kenn gënta doon ahliye ci alquran señ tuba mom nga xam ne borom moma sa téere bi laqantukal kitaab malaktukal kitaab ak mooy yooyu mu waxan ci alif laam miim ja kon nga deg ci ni xasida sëriñ bi da koo waajal ngir liggéeyam am istimrariya mooy muy continuité maanaam mbirum sëñ Tuubaa ndax xoola ba sëñ Tuubaa jógee léegi tey fi ne ku xamul woon sëñ bu ñëwee gis murid ni ñu mel day defee ne ki waral lii mi ngi fi dund ba tey ci saaxil ba mu fi jógee léegi léegi ma téeméer yi yu manqué tuuti te ba tey murid yi ñu ngi am pas-pas di dox ni war a doxee te loolu dara jiituwu ci lu dul xasida yi xasida yi mooy def loolu ci ñoom ndax gisatuñu sëñ Tuubaa ma ko bindoon waaye ndeke waajal na ngir xasida yi war a ñëw am lu ko liggéeyal kon ñu xam ne daal xasida lu am wàccuwaay la lo xamni itam neena suma koy bind malaaka yi sax dañuy jaay wala xaras day jaay katabtu ta sahasul baaxi wa sabahat malaikatu baax nga xamni su koy wax sax ta xaras ko ne ni par bu mag la alal makan, ndax xarsu suñu borom nga la wax xala arshi stawa duñ wax ni sax suñu borom mang fa tok ndax lo tawhid da koy bañ waye ab atte moy dox fofa moy muy barab digg na kawé nga xani ni kenn mënu ko weesu kon lolou lay tek te neena lolou su bind man xaras joju day jaayu malaaka yi di sabbal suñu borom te malaaka ku ne xamne lu ko tax di sàbbaal lu yéeme do kon dal loolu lepp buñ ko jangate ak li nga xamne serigne salih inshallah dina ko ci gëna leer lat dina tax ñoo xamne bu xasida lu am doole la lu am way la lo xamne wax deug yar nañ koy taxawal bis kon xamna dañuy baña guddal temps bi kon xamna naa dañ lay wàcce foofu kàddu gi inshallah joxal nga jox ak serigne salih assalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf serigne Diop kaddu yi amna solo lol leer ni ci nga xamanteni ne baye xel liggey bi ngir ñu gën a xam ni maanaam xasida yi wàccuwaay wi ñu am ci ci yoon wi ngir kat li sëriñ bi waxoon rek sama xasida yi sama jumaa yi sama doom yi kon noonu li ñu fas yéene dugal sëñ Saliou Diop rek moom it maanaam li ñu laaj sëñ Diop lañ koy laaj rek ban wàccuwaay la xasida yi am maanaam ci liggéey bi bisimilah. bisimilah moom xanaa ñu jéem a sof rek ak barkeelu ci. kàddu yi sëñ Jóob yi ndax daanaka leeral na lu am am solo mën nañu wax sax mënee su ko wax lu ko ëpp solo waaye daal leeral rek ñaari euh, point yoo xam ne rek boo ci toogoon di nga xam ne xasida yu amoo am wàcc waay la muy tarbiya dañuy xam ne yonent bi salaaw alayhi wasallam moom bi ko suñ boroom yónnee nga xam ne Ibrahima alayhi salaam moom la yàlla ah, waxoon ni ko demal ca mooy fii màkk toll daat koy tabaxloo kaaba gi bi nga xamee ni tabax na kaaba gi it ba noppi dafa ñaan yàlla ni ko rabbana wa baas fihim rasulan ni ko yàlla kat maa ngi lay ñaan nga yónni ci waa dëkk bi ab yónent yonent boo xam ne yatlu alayhimu ayatika wa yuallihum wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ni ko yonent boo xam ne kat maanaam bu ñëwee day jàng sa aaya yi waaye xamal ñi ko topp sa téere bi xamal leen xikma waaye daat leen defal tazkiya tazkiya mooy maanaam sellal seen bakkan mooy li sëñ Jóob doon wax ni mom la xasida yi def muy taxliya ak te ab serigne bu wutu yunus sallallahu alayhi wasallam diko def waye bo xolé day mel sun borom bi mu yónnee yonte bi salaa salaam maanaam Ibrahim am njàng la jitalon waye sun borom lim jital moy daf ni kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum maanaam dafa wax ni kat moom yàlla moo leeni moo yónni ci ñoom ab yonent yonente bi di leen jàngal ay aaya waaye yonent boobu it maanaam it di leen tazkiya tazkiya googu nag mooy tasawuf mooy day mel ni dafa am bakkanu nit ki suñ borom bi mu bindee nit ki daf ko maanaam utal ay noonu ndax dañuy wax ni bi mu defee ruux ci biir jëmm rek maanaam daal koy digal ngir mu topp ko day mel ni dafa am ñoo xam dañoo nekk ngir gàllankoor loolu muy ñi ñuy tënkee mashhadu muy bakkan seytaane ak bànneex ak àdduna muy nafsu seytaan hawa dunia léegi nag sëriñub tarbiya bi lan mooy liggéeyam mooy fexe ba sellal bakkanu murit bi ba yooyukat maanaam duñ am kàttan ci moom loolu nag daa am lu daan laaj muy benn dañ ko daan taqoog moom fexe maanaam yooyu nga xam ni day xëcc bakkan ci bànneex mu sori ko masalan dafa am jikko yoo xam ni mooy nekk ci nit maanaam day xëcc jikkoy bakkan la yenn yi jikkoy bànneex la masalan jikkoy bakkan yi da cee bokk muy rëy nit koo xam ne day bëgg fum nekk rek maanaam muy jiiti nit ñi walla ñu koy teg ci kanam wala mu rëy defal toogal kenn ci suuf mu koy toogal ci kaw léegi sëriñu tarbiya bi day day jël kooku ngir dindi ci moom rëy wala lu mel ni iñaan ba jikko yooyu yëpp maanaam muy jikko yu bëree bëri muy iñaan di rëy di ngistal yooyu yëpp day nekk ci bakkanu nit ak lu mel ni bëgg bànneex wala bëgg àdduna maanaam yooyu yëpp day nekk ci nit loolu nag sëriñ bi da daan taxoo yow xool jën jikkoo nekk ci yow mu jéem koo dind ci yow waaye jéem laa teg maanaam taqale laa jikko yoo xam jikko yu tedd lay doon maanaam bu dee da ngaa nga nekk ku woyof ku iñaanoon nga nga nekk koo xam ne danga nga am rida muy maanaam lu suñ borom def rek nga gërëm ko yooyu yëpp sëriñ tarbiya loolu laa def Sëriñ Tuubaa ne def ni xasidaam yi day def loolu ñaareel bi taxliya googu sëriñ si daan la def dañ la daan fexe ngay zikkar di tudd tur yàlla gu bëree bëri nga xam ne dañ koy maraleeg sa xol Sëriñ daa def loolu ci xasida yi loo koy def da koy gën a def loolu maanaam loolu la suñ jób doon gën a leeral ci tarbiya gi xasida yi di tarbiya nga xam ni léeg-léeg da ngay gis koo xam ne mosul maanaam tar maanaam dañ koo tarbiya ba noppi tarbiya googu xasida yi di tarbiya nag maanaam lu yéeme la suñ waa sax wax na ci jeexitalu midaaj yi sax ni moom ni mu bindee day mel ni daa bind ci fiq ak tawxiid ak tasawuf muy hadayta bi aqdi wa tasawuf wal fiqhi yaa lii bi dikri ma salaati wa bil madhi waaye boo xoolee xasida yi nga xam ne sax dafa nekk muy xasida yi am daax ak azkaar ak salawaat yooyu day def lu yéeme koo xam ne sax mën naa am jàngulee waaye day am yaru yar gu yéeme yéeme goo xam ne day nekk ci moom ñaareel bi dayoo gi mu waxit ni am na ko nga xam ni moom muy aras gi nga xam ne day jaayu te aras moom kenn musul solo ni lenn rek lan wax ni moo mus a jaayoo loo aras muy Saad ibn Abi wala boog Saad ibn Muaz bi mu fi jógee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne aras de jaay na te Saad ibn Muaz ci saxaaba yu mag yi la bokkoon nga xam ne dañu itazal arsu li mawti saadin waaye luy jaayaloo aras lu yéeme yéeme la ñaare bi saxaaba yi maanaam malaayika yi dañ dañuy sàbbaal buy bind xasida yi ñaareel bi it nee na xuurul ayni ak wildaan yi nga xam ne ñoo nekk àjjana xasidaam yi la ñuy wayantoo am na genn settantal goo xam ni sunu mbokk sunu xarit si Moustapha da ko doon def muy Sëñ Tuubaa li wax ni mooy ñi koy liggéeyalkat ñoom ci diggu àjjana la ñuy dëkk te yonent bi saa da daan dafa wax ci xadis ni kuy ñaan na ñaan firdawsi ndax mooy diggu àjjana ñaareel bi mu ni yonent bi wax na ni maanaam firdawsi kat daa nekk ci suufu aras Sëñ Tuubaa di wax ni maanaam xasidaam yi ñi ngi leen maanaam wékk ca suufu aras ba pare ni maanaam ñi koy liggéeyal ñoom kat suñ borom inna alladina saaraxu fi xidmati fa lahumu diyaaru sa jannati ñoom la ko waxee waxaat ni it maanaam xasida xasidaam yi nga xam ni mooy busraana jëm sa suna ñaari xasida yooyu na ci aras lañ leen wékk ñaare bi wildaan yi nga xam ne ñoom la wax ñooy jàng xasida yi day mel ni ndax euh, képp kuy dugg àjjana doo ko duggee maanaam ci ak màgget waaye ndaw nga koy duggee te nee na ñooy nekk wasal jannati loolu yooyu yëpp dayob xas yi la ñaareel bi yu yéeme nga xam ne tarbiya gi mu doon wax suyuxu tarbiya yi ñoom la naan def waaye daa waxaat ni sax moom tarbiya maanaam yonent yi xasida day def loolu da wax na ni wajaal xuruuf yi ka fiaali rusuli ah ni yàlla yàlla nga def xasida yi mu mel ni jëfu yonent yi te yonent yi ñoom ni daan tarbiya day mel dañ lay woo mel ni yonent bi alquran gi mu daan jàng mu dugg ci xol yi suñ tuwaay di waxaat na te yonent bi alquran mooy karaamam mooy mucjizaam bi gën a rëy suñ tuwaay nee na bindam bi mooy mucjizaam karaamati xatiyat yi naa loolu buñ ci buñ ci duggoon moom dayu xasida yi moom daanaka mën nga ci bind yi bind ndax boo xoolee ah, kilifa yu bari bind nañ ci muy di tàmbalee sëñ Mouhamadou Diop Dagana alminaxul miskiya daanaka boo xoolee ëpp ci xasida yi la ko jëmale boo xoolee it ah, nahjul xawim boobu it maanaam loolu yëpp ci xasida yi la jëm mooy lu yaatoo yaatu la moom boo ko doon jël dayo bu màgg a màgg la lu jara taxawal bis la te maanaam ngir di ko jàng maanaam murit yi day mel ni xasida gi moo xasida yi ñoo nekk seen madalu ruux mooy li leen lëkkaleeg Sëriñ Tuubaa dëgg-dëgg ndax daanaka gisatuñu sëriñ bi sëriñ si ñu topp it maanaam ñi ci ëpp rek ay wasila yoo xam ne dañuy jokkaloo ak sëriñ bi waaye li murit bi di jàng di dund yëg ko bu wér a wér ni lii kat Sëriñ la bàyyee ko te suñu mag bi daan wax ni day mel ni moom day dagg ci yaram di ñu jox ñaareel bi Sëñ Tuubaa li mu doon liggéeyal yonte bi salaa salaam mooy ci xasida yi la doon yonte bi ci la ko liggéeyee ci xeetam bi nga xam lépp lu mu am rek mën nga ni ci xasida yi ko amee ndax mën nañoo tënk foofu waaye lu yaatoo yaatu la maanaam koo si jox rek dina ci muy sëñ Jóob sax mën nañ ciy gën a yaatal waaye ñu ngi koy tënk foofu baax a baax maanaam di santit ci jotaay bi nga xam ne jagleel nañ ko wàccaayu xasida googu maanaam bisu xasida yi ñuy taxawal na di la jox kaddu gi seen xaar waaw ah, kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci kaddu yi am solo yor ngeen jibal waaw ah, ba tey waaw ko wax bisu xasida rek xam ni kat commission culturelle bi nga xam ne moom ñoom lañ dal dina am solo it maam ñu wax ñu maam nan la ñuy waajalee bis boobu maam ci wàllu alxuraan ji xasida yi nga xamante ni moom la mbokki taalibe bi di jànk ci bis boobu xam naa dañuy jox seen Jóob rek moom it euh, mu tijji waxtaan yi foofu bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Xaadim noonu ko waxee moom ñun moom sunu taxawaay ci bis bi. moom day yella ñu xam ko bu baax a baax ngir da ciy am solo lool ndax dañ jàpp ne rek kon ñun lépp loo xam ne moo war a jëm ci jagal bis bi ci wàllu ruux ñun war nañoo liggéey ci loolu ngir bu bis baa mu jag ni mu war a jage waaw looloo tax nag ñun tam incha allah def nañ ci ay jéego ba buñ caagee lépp loo xam ni culturel war na koo taxawee rek dinañ gis ni lépp maanaam mat na ni mu war a mate ndax Bibis bi jub see ya, def nañ ay waxtaan ba génn nañ xasida loolu gis naa ne am na solo ci bisu xasida ndax bu dul sax addee ji nga koy ko itam koo ko jox bu xoolee xasida gi dina xam maanaam bis bi kañ lay am ak fu muy amee kon loolu def nañ ko ba génn xasida goo xam ne ko am solo la muy xasida taani nga xam ñaari xasida la sax bokkut ak xasida taani bi mi non waaye bi beneen xasida taani boo xam ne sëriñ bi wax na ni jaamu yàlla at yëpp la man loolu sax itam ñu ngi bàyyi waale xel ñëpp ñoo xam ne ku seetaan lii rek nga fexe ba am ci xasida googu xam ne xasida gu am doole la te guddul bu baax ngay am ko di ko jàng itam dina am solo lool. mel ni itam def nañ ay waxtaan ba tënk naka lañ war a defee waxtaan wi ak ki ko war a wax xam naa ni sëriñ saa dina ci ñëw ngir moom mooy taxawee wàll gu mel noonu. mu mel ni itam wàllu alxuraan ji bëgg nañ fa ndax buñ ne bis xasida rek xasida ak alxuraan moom dañoo taxoo kenn mënu leen a bis bobu motax bëgg nañu faa jàng li muy kaamil yu bari bari na loolu itam ñu ngi ciy soññaale képp koo xam ni seetaan nga émission bi rek boo mënee jàng ay xasida boo gisee kenn ci mbooloo mi nga mën ko ko jotal wala boo yore kenn numéro nga mën ko woo wala boo ma ko waxee man mi wala Serigne Saleh wala ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ ci commission bi ndax commission bi tam yaatal nañ ko du ñun ñaar rek Serigne Salih moo ko jiite waaye ñu ngi ciy def ay liggéey pour mu gën a yaatu koo ci gis ci ñooñu itam wax ko ko ñu mën koo boole ci limi ndax loolu itam da ci am solo ngir ñu xam tolluwaayu liggéey bi waaye ay xasida itam képp ko mën a jàng moom itam lim bu mu ma doon duñu wax ni xasida sàngam ndax xasida moom bu ñu ko waxee bisu xasida rek kon xasida goomin rek mën nga koo jàng wax lim kon bëgg nañ incha allah bu ñaagee ci bis itam ñoo ne nga ne noonu lañ ko waajale noonu lañ koy jëmaliwaat ci bis ba def ay pavillon yoo xam ni dañuy jiital alxuraan ji teg ci xasida yi ñeneen ci alxuraan ji di jàng loolu it xam naa ñu ngi ciy soññaale suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk caare fii ñu fi taxawee wàllu alxuraan ji di ñu baax di suñu mbokk yoo xam ne jamono ñoo koy ànd ak ñun mel ni ku nga xam ne moom lépp luñ xewle buñ ko ko waxee day yónni ay dongam ñu ñëw jàng fay kaamil bare bari waaye ku mel ni itam sëriñ mm, ndongali Sarr moom it mu nekk fii ci kër sëriñ gi di def liggéey bu am solo moom it xam naa ñu ngi koy fàttaliwaat bis bi mu gën koo waajalaat bu baax a baax baax waaye ku mel ni sëriñ Taala itam ku ko xam ci dëkk bi xam ni ci alxuraan rek lañ ko xam xam naa moom it ñu ngi ko ci soññaale baax a baax su ko defee a ñu ngi bu ñëwé ci bis ba dal ñu xam ni li mo taxa juk bis bi su ko defee loolu itam comme walu ruh la ñi bëgg itam nit ñi li ñi def ñu ci bàyyiwaale xel bu baax baax ndax nit lepp lu muy def manan inal fayda alal xaqaayit pas-pas bi nga xam ne moom ngay pas dafa am solo ci li ngay def ko loolu tam wa cultural bi ñu ngi soñat soññaat ñëpp buñ ba ca bis ba ñi nga xam ñoo ñe ci bi ak ñi nga xam ne ci bas bi sax waye ci bis xasidi di mo tax a jug ñu xam ni bis bi roh moko ko ñu gëna a bàyyiwaat xel bu baax baax kon daal commission culturelle bi moom daanaka lu jëm ci wàllu ruux rek ñoom loolu seenum liggéey la ñi ngi taxaw incha allah bëgg bu bés baa rek lépp loo xam ne war nañ ko ca taxawee dina jak incha allahu taala loolu moom ñi a guddal rek a leer na baax maam léeg-léeg tamit euh, ku dem bi si xasida yoo xamante ni mbokk taalib yi dina fa mën a jëlee ni moom lañu def ab yóbbal kon it maam ba tey rek commission culturelle bi maam nan ngeen di waajalee waxtaan yi nga xam ne dina am ci bis boobu ak maam noonu gën tënkee ngir mbokk taal yi mën see jariñu kon xam naa loolu dañ koy jox seen saal moom it mu indi ci ab leeral rek bisimilah. waaw bisimilah xam naa ñu santaat sëñ Diop santaat la yooyu sëñ Xaadim ci leeral yu am solo yooyu sëñ Diop def ci liggéeyu commission bi ci bis bi maanaam comme ni mu ko leeralee rek nga xam ne bisu xasida moom daanaka mën nañu li ëpp culturel la. lu dul ñam yi nga xam ne day mel ni jotaay murit yëpp ko miin nga xam ne fu ñu dem rek ay di dinañ ko fa maanaam jàllale waaye lu dul loolu rek lépp moom day mel ni liggéeyu commission culturelle bi la. muy pavillon yi fay def ngir alxuraan ji nekk ca kanam teg ci durusum xasida gi muy jàngikat yi nga xam ni dañ fay ñëw muy jàngkat rajas yi nga xam ni maanaam ñun xam nañ ci yoon wi di fa yëkkati ak kuréeli xasida yëpp daanaka wàllu culturel la muy waxtaan wi nga xam ni dafay am moom daanaka lépp rek day mel ni bis bi moom biir baas bi daa mel ni commission bi maanaam ñoo yore li ëpp xanaa organisation bi nga xam ne ñooy organise baas beeg ak jotaay yeeg toog yi toog yi maanaam jotaay yi ñuy toog waaye lu dul loolu rek lépp culturel la te li ci sëñ Jóob leeral rek maanaam daanaka day doy sëkk comme ni mu ko leeralee wàllu waxtaan wi it maanaam da dafay am nga xam ni commission bi ñoom ñu ngi def ay réunion sax ci thèmes yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee maanaam ba xam dañuy jël benn waxtaankat rek ngir mu waxtaan wala dañuy jël yeneen thème boole ko ci maanaam jël yeneen waxtaankat tamit ngir ñu def ko. ndax maanaam lu war a war la maanaam fu ñu dajee maanaam di def dara ñu xam njëriñu lii ñuy def lan lan mooy njariñ li waaye ñu jëlee fa ay njëriñ yoo xam ni dinañ ko mën a yóbbaale ba at ma di del si ñu koy defaat moo taxit it thème yi ñu tànnoon bokk na ci muy ñu fas yéene muy daara ju mag ji nga xam ni Sëñ mun taxawal na ko muy fas yéene ko liggéeyale sëriñ bi am suñ tuwaa moom moo ko bëggoon ndax moo ñaanoon suñ boroom ngir ci daraja yonente bi ngir ñu taxawal ko école bu mag a mag boo xam ne riir dafay dañee akuk lor muy bil Mustafa li banal kuddusu madrasatan biha yadulul ada adaawal jahlu wal kabadu moo tax te loolu yëpp ci xam-xam la te suñ tuwaa xas daam yi comme niñ ko tënkee rek am na xam-xam wàllu gu rëy la ci ndax dafa waxoon mooy jihaatam inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shaahidu moo tax ñu tànnoon xam-xam maanaam ci yoonu murit maanaam gan wàll la ci am maanaam ji ko jéem lay taayalee liggéey bu rëy bi nga xam ne suñu taxa sumb na ko ñu ñaan mu mat te mu fekkee mat gi maanaam loolu lan tànnoon ci benn thème bi moom tamit ñu amoon yéene jël ku mel ni sëñ Ahmadou mbàkke maam Marème xam naa sëñ Ahmadou Mourtala ñi ko xamul ñi dëkkee daaru ahmad mam marim lan koy gën a xamee mu dëkk daaru moxti bokk ci maanaam jiite euh, alwafa waaye bokk ci rawdu rayaxin moom tamit ñi ngi amoon xalaat it maanaam ku mel sëñ abdou ndiaye tànn ko moom mu waxtaan lenn beneen tem boo xam ne maanaam ñi ngi ci waxtaan mu mel ni teggi mu di teg yu ne mel ngir mu def ci waxtaan xam naa daanaka commission moom loolu mooy liggéeyam ci bis bi dëgg-dëgg moo tax it dañu ñaan rek comme ni ko sëñ Diop ñaanee képp koo xam ne di fa teew maanaam nga jéem a teewlul sa xol yëg tey jii kat da ñëw ngir maanaam bis boo xam ne la maanaam lépp da ko bëgg a jox suñ boroom maanaam ci xasida yi Sëñ Tuubaa ak alxuraan maanaam ngir jariñu ci nga xam ne ñu bañ koo jàppee bisu foo ak wala puukare wala waaye ñu jàppee ko bisu jaamu yàlla maanaam ak liggéeyal Sëñ Tuubaa moo taxit moom ñi ngi ciy ñaan yépp rekk bu ñëwee ñu ànd ak dal jublu penku maanaam moo tax ñi ngi ñaan képp koo xam ne di fa teew rek teggin yi Sëñ wax ci kuy jàng xasida war nga ko melawoo nga jéem koo melawoo maanaam bu ñuy waxtaan it déglu waxtaan wi ngir man cee jariñu bu baax a baax maanaam lii daal xam na ni eh, mooy liggéeyu commission bu dul lépp it lépp luñ ci wàcc rek xam naa maanaam ñu ngi koy jéggalu waaye daanak li ëppoon solo daal suñ jóob wax na ko. waaw jërëjëf waa commission culturelle bi maanaam ku dégg kàddu yi ngeen wax xam ni kàddu yi am solo yoo xamante ni maam jar na fépp am waaye mën a nekk rek maanaam bisu xasida bi bu jotee nga bàyyi yitte yi ngay defee ñoo fekk ci bis bi ndax ku dégg sëñ Diop nii mu leeralee euh, wàllu pavillon yi nga xamante ni moom la ñuy amal yi ñuy def ay xasida yoo xamante ni ay muxaddimaat comme ni ko tur xasida yi ñëwee rek noonu lañ ko def ay pavillon ngir dalal fa mbokki taal ne ñooy wàcc xasida yi ñuy toog foofu maanaam loolu dina si am solo loolu ak wàllu alxuraan yi nga xamante ñu ko waxee noonu rek loolu dina jar maanaam ñi nga xamante yéen bàyyi xel liggéey bi maanaam bis boobu bu ñëwee kat maanaam ñu mën cee bénéficier baax a baax ci lu baax ngir kat xasida fu ñu koy jàngee fu ne moo ñu ko jàngewul noonu la ko sëñ Saalu leeralee ci maam li mu indi si wàlli tamit lu am solo la muy sëñ Tuubaa ak xam-xam ku wax sëñ Tuubaa ak xam-xam nag loolu day lëkkaleeg maam université bi nga xamante ne moom la sëñ ba Bassir taxawal fii ci Touba muy université boo xamante bu am solo la lépp rek ngir wàllu xam-xam yi nga xamante ni moom la sëriñ bi fonkoon loolu kon xam naa dañu bañ a guddal yéen ñiy seetaan jotaay bi ñu ngi leen sant bu baax a baax di fas yéene teg jotaay bi fii di jox mbokki taal bi ñuy tàggoo rek ba beneen leen incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Khadim ci yow itam ni nga modéré débat bi wax dëgg yàlla am na solo te di leen jaajëfal baax waat ci dalal gi ngeen ñu dalal fii Eh, wax deug yalla lolu amna solo lol ñu ngi ci sante sant bu baax baax tey ñaan itam seen chaîne bi dem ba bokku ci seen yi gëna a kawe am ay télévision yu gëna a mag ci Sénégal deug yalla ni nga eh, jité jotaay bi amna solo lol di jaajeuf itam Serigne salih nga moy suñu jëriñ deug yalla momit indi na lu am solo lo xam doole ko nañ ci baax baax eh, kon xamna dañuy nuyu fofu rek mm, te tëj kàddu yi di ñaanal Cheikh mohamedine muntaha suñu borom may ko fa nu guddul ko wir tey soññewaat rek kon niñ ko waxe ci bis bi rek yeen ñep ngeen waajal ko kep ko xam da setan nga ni daal ñu ngi bëgg rek nga waajal bis bu baax baax baax kon xamna dañuy wàcce ko kaddu gi rek inshallah ngir jëkënte ak temps bi sey khadim kon jërëjëf alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah sëñ Diop ngi lay sant bu baax baax yow it ci kaddu yi am solo ngay nga ngir kat maam wóolu nga ñew yombul waye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax yi ñi bàyyi xel liggéey bi fu ngeen mënti nekk rek xamna dañuy jox sëñ salih Diop mom mu tàggatoore ak mbokki taalibe yi di sant bu baax ci jotaay bi moom di sant sëñ Xaadim bi nga xam ne moo ko doon dirigé moom it di ñaanalaat Cheikh yàggal ko fi dolli ko wér ba mu yeggali bi yëpp maanaam it di woote waat ci bis bi maanaam di sàkku teewaayu ñëpp rek maanaam di ci soññi ñun ñi nga xam ne ñoo ko séq muy jokkoo bi ñëpp ñu ngi leen ciy soññee. di leen soññ ci lépp loo xam ne moo koy jagar rek xam ni moom ku woo ay nit ngir ñu ñëw rek maanaam dina am loo warloog ñoom te loolu mooy ay xéewal te xéewal yooyu ay addiyaa koy def maanaam képp koo xam ne lépp lu la war ci bis bi rek nga xam ne commission yi séq bis bi maanaam tënk nañ ko maanaam nga jéem cee farlu matal ko bu baax a baax maanaam di leen ci woo di ñaan suñu borom it mu yeggale ñu ci maanaam defal ñu yiwu bis bi yëpp maanaam suñ borom defal ñu ko defal ko dëkk bi te sotti ko ci jaaxe Sëñ Tuubaa te fas ñu fasaale ci bu baax rek ñëpp ñu ko daan fekkee di ci fasaale it Sëñ Sidi Muxtaar bi nga xam ne maanaam édition bu njëkk bu moo ñu joxoon ndigal ba maanaam bii weesu daaw rek moo ñu ci jox ndigal maanaam ñu ngi ko si ñaanal bu baax a baax moom fa mu nekk di ñaanal njabootu suñu tuwaay wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah kon commission culturelle ñu ngi leen sant bu baax baax di leen jaajëfal xam naa nii rek leen ko fas yéene ànd ak mbokki taalibe bi ba keroog ñuy tàbb ci rek. mi bépp commission boo xamante ni nekk na ci jokkoo bi rek incha allah dina fas yéene ama yow jotaay boo xamante ni dina leeral li nga xamante ni moom nga rek ngir wàccaay bis boobu di sant yi yi bàyyi xel liggéey bi fu ngeen mënta nekk rek moo xam fi jëré wala bitim réew la in uridu ila islah masratu wa ma tawfiq ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barke borom Tuubaa alhamdulillahi alladi yusalli ala nabi الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي